dal leen ak jàmm ci AGT news chaîne bi leen di jox xibaar yi wér wóor abonné leen ngir dara bañ leen a raw. AGT news. jërë ngeen jëf yi comme niñ koy faral di ko waxee rek mooy ku mënul def. Ousmane Sonko moo woote ci Dakar Arena gis ngeen lii di fa nekk di xew actuellement mu nekk des images exceptionnelles te li nekk ci bitim moo ëpp fuuf sénégalais yi bàyyeekoo ci région yépp def seen ay caravane jubal si ci jam ñaajo ngir teewee kaddu yi nga xam ne Ousmane Sonko le président du parti Pastef fas yéene na koo yëkkati. lii nag daf di démonstration de force ndax dara xewagul waaye gis ngeen ambiance bii nga xam ne moo tàmbali di am foofee ca Dakar Arena mooy mbir mu ama ama ama am solo. day wane encore une fois te dëggal ni Ousmane Sonko jamono ji moo téye ci loxoom politique bu réewum Sénégal ñëpp yaakaaroon nañ ne dina bëri ay ndaw yu koy wan ginnaaw gannaaw yenn jafe-jafe yi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci réewum Sénégal waaye tey jii la ko ndaw yi gën a bëgg tey lañ ko gën a fonk tey jii lañ gën a mën a manifester seen mbëggeel ci moom ba gis ngeen actuellement image yu rafet yi nga xam ne ñu ngi koy gis foofee ca Dakar Arena muy ndaw ñoo xam ne ñu ngi taal ay fumigène ñii di tàccu ñii di fecc ñii di way lépp nag benn jëmm moo ko waral mu di Ousmane Sonko waa ji dafa ute lool ak ñoom ñëw révolutionner encore une fois politique bu réewum Sénégal ba ñëpp dugg ci ku nekk di ci wax sa xalaat ñu décomplexe mbir yi ba nga xam ne sénégalais bu ci nekk da ciy mën a am kàddooma ba noppi itam da ciy yëngu te xam ne moom acteur de développement la comme ñëpp ni ñu ko doonee. mu ngi noonu kon Dakar Arena tey jile mooy attraction bi ci réewum Sénégal ñi nga xam ne dañ di ay opposant nag gëm ne kii di Ousmane Sonko du dara gëm ne kii di Ousmane Sonko amul lenn lu mën a liggéey ci réew mi te itam nekkatul ci xolu sénégalais yi nañu organiser lu mel nii jarul sax ñuy dem ba Dakar Arena nañu dem rek tout simplement Sorano wala ñu organiser meeting bu ndaw ci benn salle de conférence ñu xool ndax sénégalais yi dañ leen wuyu si lii actuellement kooka nangulul waa ji dafa fekk ne peut-être da nga amul lecture politique bu baax wala boog nga doon koo xam ne tu es de mauvaise foi wala tout simplement comme yenn opposants sénégalais yi leen dal jalousie dugg la nga ñeewaa ji ndax yaakaaroon nga ne tey jile position bi mu am ci wàllum politique yow moomee yaa ko waroon am waaye suñu boroom ñëw teg ko ci sa kanam ba yàqal la lu bëree bëri loolu moo tax nag suñu borom moomu lañ war a nangul li nga xam ne may na ko Ousmane Sonko ndax mayu ko n'importe qui ci réewum Sénégal ay jamono maître Abdoulaye Wade amoon na ko waaye tey ñëpp gis nañ ne Ousmane Sonko bi mu dugg si njàngum politique dafa dépassé képp koo xam ni boo xam ne kenn dootu ko fàtteeti bu mu ko turam dañ koy gravé ci analu histoire Sénégal moom mi xëy bés fal fi ay maire fal fi ay député ñu ne détawaay mu fal le président de la République du Sénégal moom mi la gars yi doon xëccoo jamonoy coalition Yewwi Askan Wi ñoom leader yëpp kenn ku ci nekk lenn nga doon sàkku di ko saraxu Ousmane Sonko mooy jaaral sama dëkk l' essentiel mooy booy sax romb nit ñi di la gis def ko tout simplement ma àndandoo ak yow boo ko defee askan yu mën maa fal mu lay wan que ni kii di Ousmane Sonko moom mooy centre d'intérêt bi ci moom la lépp di tourner ba léegi nii moom dafa am benn influence bu mag boo xam ne am na ko ci mbirum politique te ndigal bu mu jox ndaw ñi dañ koy jëfee ndax am nañ njort bu rafet ak yaakaar bu rëy ci moom ni réew mi dina ko soppi dina soppi doxalin bi te jub-jubal ak jubbanti bi mu wootee moom ak le président de la république ci lool la ñuy dox ci loolu la ñuy tënku ci lool la ñuy teg képp kuy sénégalais ñu nar laa dénk loo xam ne koppar la ñëpp daal di koy bokk te itam lépp lu ñuy séddale ci réew mi dina doon lu équitable dinañ ci sóoraale kenn ku ci nekk xaj ak seen dootul am te itam dinañ fas yéene tëddee njaaxaanaay yi ba kumba am ndey a kumba amul ndey yi nga xam ne nemmeeku woon nañ ko jamonoy Macky Sall dootuñu ko gis ci réewum senegal ndax kat Sénégal yi sonnoon nañu lool moo waral ñëpp àndandoo woon booloo def benn say xeex régime bi fi nekkoon ñoom ak seen ay nit ñu leen di woowee waa système bi waa système boobu nag tey jii ñoom ñooy bañ ne Ousmane Sonko ora bi mu amoon démb mi ngi koy am ba tey ñoom ñooy jéem a xool naka la ñuy def ngir jéem a dénigrer waa ji waaye mënut a sotti mënuñu ci am ndam li nga xam ne bëgg nañu ko ndax nag ndawi Sénégal comme ni ngeen koy gisee nii ñoom ñoo wuyu si waa ji ñoo ko topp ñoo ànd ak moom ñoo koy safoo ñoo koy bégee soxlawuñ dërëm di jóge ci Ousmane Sonko di ñëw ci ñoom lenn la ñuy def au contraire mooy jël seen i dërëm seen i ñaar dërëm dajale ko bu mat dara teg ko ci loxoom ne ko doxalal yow ak le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye bu ko defee Sénégal bi ñuy séntu depuis des années ñu mën koo am te loolee c'est bien possible il suffit kenn ku ci nekk la ca war nga def ko ca bu ko defee résultat ba ñuy séntu dinañ ko mën a am te nag rupture la ñu woote rupture googu moo waral meeting bii mu ne gars yi pour collecte de fonds la bu ko neexoon du ko ci fekk day tibb ci keesu état bi comme ñi fi nekkoon niñ ko doon defee financer campagne am jox nit ñi ay koppar ñu voteel ko mu am majorité comme na nam ko bëggee bu ko defee mu doxal aw liggéeyam waaye daf ne confiance bi doxoon sama diggante ak askan wi moom laay continuer di maintenir moom laay téye ba nga xam ni ñoom askan wi ci boppam ñoom lay laaj ñu financer sama campagne votel ma jox ma ay député bu ko defee ñun ñëpp ñu ànd encore une fois booloo def benn say ngir tabax suñu Sénégal te loolee lu mën a nekk la te objectif bi dinañ ko daal di atteindre kon gars yi yéen a ko gis Dakar Arena ma ngay toj Dakar Arena jamono ji patriotes yi dañ koo envahir Sénégalais yëpp daw ngir wuyu ci wooteb Ousmane Sonko ngir teewlu itam kaddu yi nga xam ni fas yi dana ko faa yëkkati muy loo xam ni ñëpp jamono ji moom la ñuy kon comme ni ñuy faral di ko waxee ensemble pour un Sénégal meilleur ñu àndandoo ak le PM Ousmane Sonko et le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye lépp nag ñu tënk ko ci jub jubal ak jubbanti jaa ngeen jëf News